baal ma àkk baal naa la yal na ñu yàlla boole baal ndax jàmm na dàkk lu yàlla sàkk yàlla nañ ko buur bi yàlla defal am naa du ñàkk waay na nga ma ko jéggal yenn say saytaane man ma ma def lu may rëccu waaye néew ma kenn du أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله di wax ni namm naa la lool yal na yàlla defal la jàmm koor gi yàlla nañ ko fekkee jàmm yàlla bu mu sama jug koor yàlla bu mu doon sama jug koor yàlla na nga ko yàgg a woor ci barke yonent bi buy ñëw bakkar bu mu fekk si yow yàlla na ko effacé te yàlla na la si yàlla ñoo di lay xéewal balaa koor gee ñëw wala balaa koor gee jeex yàlla na la yàlla def milliardaire yonent bi ci barke yonent bi yéene naa la jàmm man de ameloo ma àq man maa la amel àq maa ngi lay borom xol bu rafet nga xolu jamaa nga yor message bi envoyé ko képp koo xam ne yéene nga ko jàmm te bëgg nga mu doon milliardaire yàlla nga doon milliardaire yonent bi jërëjëf mbokk asalaamaaleykum man maa leen di baalu ak baal naa leen ak yàlla boole baal si jour korite bii nii xam naa am na ñoo xamante ne wari nañ kii nii démb démb bu waxuñ wante tamit maa baalu ak ñëpp te baal leen ma ak baal naa leen yàlla boole baal loolu kese moo nekkoon message bi waaw kon baal leen ma àq youtube bonne correction